events di événement boo xam ne Serigne Mbacké Dieng moo ko taxawal doon njukkeel ñi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku di doomi Bawol ci atum 2019 bi ci loolee mu tànn ci juróom-ñeent ñoo xam ne dañuy yëngu ci activité yu wuute mu jox leen ay raaya ci li nga xam ne ci lañ doon yëngatu loolee mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ ci sargal ànd nañ rafetlu initiative bi. ko félicité aussi ak xam ne ñoom la àndal ñëpp bu rëy bu am solo la. ndax dëkk bi dafa bari ay jàmbaar yoo xam ne ñu ngi fi ci na ak xeet yu bëree bari kon bu defee lu mel nii loolu day tegtale ne li nga xamante ne bii mooy li jëmmale dëkk bi ci yoon wi nga xam ne ci la war a tegu loolu yitteel na ko. ñu xam ni département Mbacké ñoo ko moom kenn duñu ko defaral ñoo ko defaral suñu bopp fii ay ndaw ñi ngi fii ñu gëm seen bopp bëgg liggéey. tey tamit am ay diplôme te mane ko. mais je demeure convaincu que déwén xëy na dina am ñu taxawaat fii ñoo xamante ni bii seen parcours moo gën a brillant suñu bos seen euh, expérience moo gën a mag suñu bos mais ku nekk ak cëram ak waxtu bi ko yàlla di dogale yàlla na tombeek mu gën ci ñu gën ci suñu njaboot. ak prix bii ñu ciy jox ñu koy jox muy le président Moustapha si Lo di président du parlement de la CEDEAO. di premier vice-président assemblée nationale wooñu léegi bi ñuy dugg si ndax dafa am empêchement waaye moom moo bëggoon a ñëwal boppam ndax lii lu rëy ci moom la. tey ñu bëree bëree bëri mën naa ni dawal saret mooy seen métier même bu mu fekkee dawal saret lu baax la sax mais ñu dana bokk ci ni gëm ni am njàng mooy doxal am réew loolu mooy suñu gëm-gëm. moo tax bin jàngee ba am suñ master 2 ci université Cheikh Anta Dakar ñu retourné dikkaat fii jéem a investir métti woon au début nag ndax suñ bourse la dajale pour jéem a mën a investir suñ borom su tural nañu ba ren mooy suñ deuxième année am na ñetti cycle muy élémentaire mooy ak secondaire ak euh, benn personnel boo xam ne mi ngi tourné autour de vingt cinq personnes. événement bi nga xam ne moo di Baol Events nekk na jotaay boo xam ne kilifa yu bëree bëri teewe woon nañ ko bokk na ci sous-préfet bu Ndaam mi nga xam ne moom it yëkkati na fa ay kàddu saluer initiative bi. événement la affaire bu am solo la nay law nay continuer ndaxte dajale ay doomu Bawol waxtaan ak ñoom féliciter leen génnee ñi nga xam ni bi ñoom la ñu ràññee ci seeni pas-pas seen engagement seen abnégation ci fànn bu nekk. parce que loo xool fii tey jii intégration leadership entrepreneuriat des hommes des jeunes comme des femmes yooyu yëpp boo ko tënkee loolu lay fa Hampâté Bâ doon wax rek la diversité des couleurs fait la beauté d'un tapis ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ci atum 2019 bi fii ci diwaanu Bawol te Bawol Events def lu ni mel loolee am na ay critères yoo xam ne ñoom lañ leen tànnee. Euh, critères de sélection yi du woon lenn lu dul ñu gis naka ni comme que dañuy door ñi nga xam ne que suñu borom dénk na leen des postes de responsabilité yoo xam ne que ne am nañ fu nga xam ne bu ñu fa toogee seen kàllaama dina egg ci ñi nga xam ne ñooy décider nañ leen tàmbalee parce que suñu mébét lenn rek la mooy ñu fexe ba ñu fexe ba même xale bi nga xam ne. day soo a dugg ci métier di def karo wala wala muy def tailleur te suñu borom may ko ci benn talent bu nga xam ne parce que suñu borom mooy fab li ko soob mu def ko ci nit ki ki nga xam ne que ne tey dañ koy fekk ci place am di ko ñu ñu ne kat macha allah ciseau bi mu yor bu la daggalee nangam muy nangam suñu mébét mooy dem parce que foofu tamit dana fa am lu ma fi leeral tuuti bawal du diggante Mbàkke ak Touba Touba la ba nangal ma limite raison de Thiès ak limite raison de Louga kon bawal yaatu na fi ñu tàmbalee nag mooy fi nga xam ne que yàlla may nañu ci diiru 30 ans wala 35 ans ñun ñii nga gis ñu nekk sama ginnaaw fii la yàlla def ñu gënee fi àdduna ba suñu borom may leen at yi ñu am ñu ne nañ fi tàmbalee ñi nga xam ne ñi ngi weesalante ak ñoom ba bu ëllëgee ñu yokk étape par étape ba ba ñu mën a daj li nga xam ne mooy surface su Bawol gépp ñu gis ne am na ñu fi nekk ñu xam ne suñu aîné lañ maanaam suñuy mag lañ di yëngutu ci kàngam nga ca kon dina baax ñu wan ndaw ñi nga xam ne dañuy soog a dugg ci euh, yëngutu ñu wan leen tamit ne leen am ngeen mag ñu nga xam ne fañ nekk tamit ñu ñu respecté lañ. Serigne Mbacke mi nga xam ne moo taxawal lu ni mel ne objectif bi nga xam ne moom la fixé woon atteindre na ko donte métti woon na lool. biñ siy dem on avait une conviction benn gëm-gëm la ñu amoon mooy nag lu mën a nekk la lu loo xam ne war nañ ko mën a def suñu borom dimbali nañu kàttan nañu bañ def ko mais métti na mais alhamdulilah. Serigne Mbacke Dieng mi nga xam ne moo taxawal lu ni mel ne objectif bi nga xam ne moom la fixé woon atteindre na ko donte météo na lool.